alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi nekk ci rasul irada bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di ñaan yàlla sunu kàddu fekk leen ci jàmm yàlla yàlla defal nu jàmm ñuy dégg jàmm di gis jàmm suñu mawita ak irsaat tey moo di xif inda alxaqi wa kun munsifan li tanfaa annaasa wa tanfaa nafsaka mawdu boobu mooy jullit fu mu nekk na taxaw fa dëgg féete te bu mu xañ kenn ak xam buy wax na nekk ku équilibré ku nekk ci digg bi su ko defee dina mën a jariñ nit ñi jariñ boppam te du wàññi nit ñi du wàññi boppam waaye doom aadama su fekkente ni équilibré wul ci ay jëfinam su bëggee dof su bañee dof day jëriñ day jëriñ boppam yàqal ñeneen waaye su fekkee ni na nekk ci insaaf dina ba dina mën a amal njëriñ nit ñi dina amal njëriñ boppam arrajulu man tadharu athaaruhu ba'dahu ijhad an tabqa al asaru ba'da al ayni waj'al utayiban mardiyan al haqqu mukawwarun taata dulu'i tuuqinu bihi anfusul xaasidin wa taatarifu bii quluba aljahidin wa hasbuka an taqirra li haqqika anfusa awsaadika walaw inaqadat an nutqi bihi alsinatuhum wa an taatarifa bihi laka qulubu jahidika walaw sarafahum an tafawuhi bihi juhuduhum هذا شرف الحق فليفتخر المحق وليبهج أهل الحق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر وقد ملأ نوره عوالم الله تعالى كلها فقلت الصلاة والسلام عليك يا روح العوالم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام فقلت يا حبيبي علمني أشرف العلوم فقال والوقوف عند الحق واتقوا الله ويعلمكم الله وحسبكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدي سيد أهل الحق sayyidu ahlil aqi an nasiril haqi bil aqi muhammadun akramu abidika wa ashrafu ibadika wa ala alihi wa ashabihi ajmain allahumma arsudna bihi lil haqi waj'alna bi barakatihi min qasati ahlil aqi rabbana atina min ladunka rahma wa ayyi lana min amrina rashadan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi suñu maw isa ak isaadu tey mi ngi tënku ci taxaw ànd ak dëgg tey set tey setal kenn ku nekk sa lépp nga équilibré ko say bëgg nga bëgg ci lu yem sooy bañ nga bañ ci lu yem su ko defee da ngay jariñu jariñ nit ñi waaye su fekkente ni soo bëggee da ngay bëgg bëgg ba egg foo xam ne nit ki moom per bu macc bu yàlla macc yàbbi lay doon dootu am sikk sooy bañ nga bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a bañ nit ki ba egg ci lu nekk ci mbuus ba ñu génne ko sànni kenn amatu ca soxla su boobaa dootoo mën a nekk nit ku normal nit ku normal dëgg lu mu bëgg bëgg nit ki da koy won ay faayam ak ay sikkam ngir mu mën caa góorgóorlu waaye lu mu bañ bañ bañ nit ki itam bu mu ko suulal ay jëfam yu baax sénégalais nag su bëggee nit ki da ko yëkkati ba mu dem ca tabaxi asamaan yi juróom yaar ya doonte ay sikk ngi ci moom da ko naa mën ngaa yóbbaale sikki yi te al ilay yasadul kalimu tayibu wala amalu saalihu yarfauhu lu sell lay yéeg te jëf ju baax ko yéegal sénégalais su bañee nit ki da koy suul ba mu ne ma lañ lañ lañ lañ doonte ay baax a ngi ci moom te loolu du yoon dénkaane bii malit di bëgg a wax nag imaam ahmad rifai a sayid cheikhul kabir imam ahmad rifai radiallahu anhu moo ko wax daanañu wax ay waxam di ko def maw is ak mu amoon njëriñ lool waaye dañ ko dañ ko xawoon a teggi tànk ndax boroom xol bu tuut mënta bëgg mënta bëgg lu rëy boroom kaas diisu ko sottil bidong borom beñuwaar kenn du ko sottil barigo maanaam nit ku nekk dangay xool lam xejoo àttan ko rek nga bàyyi koog moom nit ki su matagul mat gu tol ni mën a jaxasoog ñépp tey moom jërul nga di ko wax ñëpp ndax day ragale seey jaxasoog ñeneen naaxi saay waaye nit a ngi ci nit ñi ji koy doju taw la ñuy doon doju taw moom lu wala ngaan mi bari bari bari day biringu rek waaye bu wala ngaan ma jàllee mu des fa diw doj doñ ji suufu taw nag rat rat ko tee seey boo fa delloo duutu ko gisati nit ñi nga xam ne dañoo am ay sëriñ am ay wasila te bëgguñu dégg lenn lu dul waxi seen sëriñ yooyu ñooñu ay doñ ji suuf lañ dañoo ragal waame ndax dañoo bañ a seey am na nag ci nit ñi ñoo xam ne ay doj yi carrière lañu lu ndox bari bari di di wala ngaa nit da leen fay romb dem boo dikkaatee fekk ci nekk aw doj Sénégal nag daa bari ay doñ ci suuf loolu moo tax bëgguñoo dégg lu dul seen waxi kilifa bëgguñoo dégg waxi keneen waaw ndax su ngeen ko déggee man ngeen a seey imam ahmad rifaayi dafa wax ni ar rajulu man tasaru asaaruhu baadahu waxi mag ñi njëkk ñi li tax mu jar di jàngale da nga ciy déggee waxi mag ñu mujj ñi imaam Ahmad Rifaay dafa wax ne góor yàlla dëgg ay jeex itam balaa feeñ fekk génn na àddina xam nga loolu mën naa tekkee du dee ndax nit ku ne dee na ba noppi te foo jaar ne moo fi def lii foo jaar ne moo fi def lii te loolu mu fi def jëm yow mal xiyaam kooku kay kon jëmam a dee waaye jëfam deewul imam Ahmad Rifaa'i ne góor dëgg mooy ki nga xam ne balaa jëfama feeñ fekk génn na àddina mu daal ciy teg nag ne kon iti at an tabxal asaru baadal ayin mu ne sama doom waaye rikk na nga góor góorlu ba bis boo fi jógee sa jëmm nekkatu fi say jeexi des fi wajal u tayiban mardiyan imam ahmad rifaayi nee na na nga góor lu ba bis boo fi jóge sa jeexital yi fiy des doon jeexit yu teey sa jeexit yi fiy des doon jeexit yu ñu gërëm alxaqu mukawarun taxta dulu yi nee na dëgg ci roon ci roon bal jot ya lañ ko denc dëgg ca màngasin ba ca roni faar fa lañ ko denc tuuxinu bi i anfusal jaahidiin anfusal xaasidiin nee na dëgg même buñ ko logee denc ko bañ koo wax itam xoli coxor yi danañ ko xam ku gis nen ne nen a ngi boo dee gorte suxuroo ku gis nen nag te soxor doo nangu ne nen a waaye sa xol dina la wax ne lii ma gis nen la doonte duma ko wax moo tax imaam ahmad rifaayi nee na dëgg ña ngi ko denc te ron faari doomu aadama mu ne bakkan xolab képp ku mën a doon dana ko nangu doonte ab sox ab soxor la dana nangu ne lii dëgg la wa taatarifu bi i xulubul xaasi jaaidin nee na ni bakkan ak soxor di nangoo dëgg te du ko nangoo leeral noonu itam la xolab weddi akon di nangoo dëgg donte du du ko nangoo leeral mu ne kon wa hasbuka an taqira xaqika anfusahu saadika nee na sa sa yelleef sa dëgg sa mbaax sa njub bu fekkente ni say soxor yi lay kañaane nangu nañ ko ci seeni bakkan nangu nañ ko ci seeni xel doonte seenu làmmiñ day damm ba duñ ko tudd doy na ndax sàng lu malan jot te sur kor du ko teree feeñ walaw in aqadat an nutqi bi i alsinatuhum mu ne sa sa yelleef sa mbaax sa jeexital yu ñu gërëm yu teey bu ko sa xeli noon nangoo doy na doonte làmmiñ yi day tënku ci du ko tudd nit ki su la soxoree dana xam ci yow mbaax waaye du ko nangoo wax ndax coxor gay tax wa an taxtarifa bi ilaka qulubu jaidika imam ahmad fay nee na doy na su fekkee sa mbaax sa njub sa dëgg ñi lay weddi sax seen xol nangu na ko walaw sarafa um anit tafawu bi i juuda um donte weddi gañ lay weddi tax nañu lànk ne duñ ko wax waaw ah diw ku baax la ah, da caayam rek bët set de waaw waaw waaw diw gore la ah mbaa mbaa li ngay wax setantal nga ko maanaam maanaam nit dina baax mbaax gi xol yépp nangu ko waaye weddi gañ koy weddi mooy tax ba làmmeñ ya lànk koo wax imam ahmad rifaa'i nee na loolu nag moo di tedd ngay dëgg hada sharaful xaqi fal yaftaxir al muhiqu wal yabta'i alul xaqi nee na tedd ngay dëgg mooy loolu dëgg soo ca nekkee say noon dañu koy wanaasu bañ koo génne mu nekk ci seen roni faar waaye daañu ko xam dëgg soo ci nekkee ña lay weddi seeni xol dana ko reconnaître donte seeni làmmeñ du ko tudd dëgg soo ci nekkee xol yi nga xam ne ñoo ñi la weddi danañ xam ne ci dëgg nga nekk waaye seen làmmeñ da koy bañ a tudd ngir lan ngir weddi ga mu ne loolu mooy teraangay dëgg ku nekk ci dëgg soo yeboo na nga ko tiitaroo te puukarewoo ko ku nekk ci dëgg soo yeboo def ko mbégte jamono ju nekk loolu imam ahmad ar-Rifaa'i moo ko wax mu teg ci ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laylata iidil fitri mu ne dañoo mas woor bay wori ma gént gis yonent bi ci guddi bisub korite maanaam weer wi feeñ ci ngoon ñu war a wari ca suba ga wa qad malaa nuuruhu awaalim allahi taala kulliha mu ne bi ma géntee gis yonent bi ci guddug weeru ko bisub korite leeram gi dafa fees awaa li mu yàlla yépp da da leeram gi da koo fees fa qultu assalaatu wassalaamu alayka yaa ru al awalimi ya rasulallah nee na ma ne ko yàlla julli ci yàlla ak sëlmalam nekk ci yow yow mi nga xam ne yaa di ruuxu alam yëpp yow ndawal yàlla li fa qaala wa alayka salaamu nee na yonent bi tontu ma waaleykum salaam yow tamit yaa habi yow tamit ahmad arrifai nee na fa qultu yaa habibi allimni ashraf al ulum nee na ma ne ko yonent bi dama bëgg nga xamal ma xam-xam yi gën a tedd laa bëgg nga xamal ma ko fa xaala huwa al wuquufu inda al xaq mu ne yonent bi ne ma xam-xam yi gën a tedd mooy nangoo taxaw fa dëgg féete nangoo taxaw fa dëgg féete nee na mu daal di ci tegal nag ne wattaqullaa wa yuallimukumullaa wa bu mu ne ko na nga ngoy ci taqawallaa yi soo ngoyee ci taqawallaa yi yàlla ci boppam moo lay jàngal te doy na bu la ku yàlla dekk sa sëriñ daara bu lay jàngal doy na kon yal na yàlla julli ci yonent bi sëlmal ci moom barkeel ci moom moom mi nga xam ne mooy sayyidu alil yi mooy sa nga waa ñooñ dëgg naasiril aqi bil aqi mooy dimbulee dëgg ci dëgg mu muhammad mi nga xam ne mooy akramu abidiki abidika waa sirafu ibadika yenent bi moo gën a tedd ci jaami yàlla yi te itam moo gën a am moo gën a am teraanga ci mboolem jaami yàlla yi yal yàlla julli ci moom yal yàlla sëlmal ci moom sëlmal ci ñoñam ak i saabaam ñoom ñëpp te yàlla jubal ñu ci dëgg yal yàlla def ñu ci barke bi yonent bi ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo féetewoo ak dëgg kon rabbana atina min ladunka rahma waaye lana min amrina rashadan amin loolu moo di tey suñu mawisa ak suñu irshad kon buñ leen ko mënee waxal ci wolof mooy nit buy féete day féete ak dëgg nit day am insaaf insaaf mooy sellal insaaf mooy am xol bu yaatu boo xam ne soo gisee lu ku baax ne ku baax ngi donte danga koo bañ mbaa nga soxre ko insaaf mooy nit ki di taxaw jamono ci nekk jamono ji nekk ci lu koy jariñ moom tey jariñ nit ñi waaye nit ki wër te taxaw ci piite moo xam ne intérêt boppam dong lay xool te du xool luy jariñ nit ñi waaw bu fekkente ni nag sax yemut ci xool luy ñàkk a xool luy jariñ nit ñi waaye daa taxaw temm ngem ci lépp lu nit ñi am muy seen njariñ muy xëy yàq ko ci benn bis nag est-ce que kooku jullit dana ko def waaye jullit du def loolu imaam Ahmad Rifaayi nee na góor dëgg day dee tey dund ndax ay jëfam dafiy des ginnaaw su deewee kon na nga góorgóorlu ba sa jeexit des fi ginnaaw boo deewee te na nga fexe ba jeexit yi fi des ginnaaw boo dee dee nekk jeexit jeexit yu teey nekk jeexit yu ñu gërëm te nanga xam ne dëgg moom dañ koy wanaasu mu dem ca roon ay faar toog fa waaye xelam kuy soxor dana ko nangu ab soxor dina ko nangu donte du ko nangoo wax xolab kuy weddi itam dana reconnaître ne dëgg la sénégalais nag boo amoon fukk yu baax ak yu bon bu la xasee noonu moom danaan yu baax yi bu ko fi wax leen yu bonam yi waaye dëgg bu fekkente ni xel yi ñi nga xam ne dañ lay soxore nangu nañ ko rek doy na alxaqu ma shahida bihil aada nee na dëgg mooy la nga xam ne noonu ya ñoo koy seeree dëgg war naa doy kenn ku nekk doonte làmmiñi gaa yi koy soxare duñ ko wax dëgg war naa doy ku ne doonte xoli ñi ko weddi duñ ko nangoo tudd ngir weddi gaa loolu mooy teraanga ji yàlla jox dëgg mu ne su ko suul ba du feeñ ndax moo ker ñoo yem mu ne su ko sàng ba di su ko gis ndax malaan jotu ko kon ku yàlla jox dëgg booy boo nga bëggee ko ku yàlla dox jox dëgg see boo nga maaree ko mu ne yeneen bi gis naa ko ci guddi korite leeram gi fees àddina yépp ma ne ko yàlla na jullit yàlla ak sëlmalu yàlla nekk ci yow yow ruuxu àddina bi mu ne ma yow tamit yàlla na jàmm yàlla nekk ci yow ma ne ko sama soppe bi doo ma xamal xam-xam bi gën a tedd ci xam-xam yépp mu ne ma xam-xam bi gën a tedd ci xam-xam yi yépp mooy ànd ak dëgg ak fu mu mën a ne alwuquufu ma alxaq ànd ak dëgg fu mën a ne mu ne ko boo àndeek dëgg ak fu mën a ne nag ragalal yàlla soo ragalee yàlla yàlla jàngal la te yàlla doy na ab jàngalekat wattaqullaa wa yuallimukumullah wa asbub kon yàlla yàlla teg lu ci njub yàlla yàlla teg ci sellal loolu moo nekkoon maw isa ak irsaat bu tey bu débordé amul rek programme bi yëpp dana continuer muy maw isa irsaad bi irsaad ak jàng mi tout incha allah Baye Saliou Kandji ah, dina tàmbali eh, jàngale ci urasul irada bii dafa waxagul nag ban xeeti xam-xam lay jàngale dama ragal ne nag mën naa jàngale ci tasawu fi Serigne Touba ji wala mu jàngale ci fiqam ji wala mu jàngale ci taw idam ji waaye dana tàmbalee jàngale fii ci biir urasul irada noonu it la ma gënalee maanaa ko ci xam ne yàlla jàppandi la jàppandil na la loo xam ne su weer bi dee ee Cheikh Gueye génne keneen génne ñu boole def ca trésor yi muy am satu su boobaa dongo yi am xam-xam yëpp daañu mën a dugg jàngale ndax des na leen mën a dimbal bañ mën a duggu jàngale te du dis ci ñoom ndax dongo moom Ah, waggi jigéen la yore mën naa lagg waaye bëriwut maam jigéen moom bu bàkku jotee mën naa yëkkati loxoom di bàkku itam di dal waaye bu ñu sëgg leen bëree du bëree wagg dongo dooley ndongo waggi jigéen la lagg na waaye bëriwut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu